lu mooy xëy na da ko tàmm ci aada rek parce que am na ñoo xam ne tàmm nañ ko ci aada ak itam bëgg société bi accepté la sax rek nga ci àndandoo di yëngu mais ay muuma rek nga ko jàppeew ay muuma rek kërëb kërëb kërëb noo ko defee rek baax na am na ñoo xam nuñ def rek baax na dañ fexe dal ba niral ko rek ñooñu loolu du leen musal ci mbugal te googa julli doonul julli goo xam ne guy mën a baaxal nit la moom la borom bi wax ci suratul maun fa alladina hum an salatihim saahuun alladina hum yuraauun wa yamnauun al maun nee na day mbugal ñeel na ñoo xam ne dañuy julli waaye julli ga dañ cay jamuj mooy seen xol du ca ànd xosoo amu ca xol ba àndu ca cër yi rek kay yëngu mais xol bi moom yoonam nekkul ci julli waaw ñooña borom bi tabaraka wa taala mbugal la leen fa tegal kon nag julli itam nit ki day jéem a yar boppam ci xol bi di ci ànd ni cër yi yëngutoo xol bi itam teewloo noonu biir julli gi jëli nañ ci da mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al ahdu alladi baynana na daal kóllëre gi dox suñu diggante ak yéefar yi tàqalenoog ñoom nee na mooy julli ku ko weddi rek nee na faxat kafar nee na dal nay weddi rawaw ahmad gis nga julli itam moom la borom bi tabaraka wa taala def muy sartu nit ki mën a nekk sa mbokkum jullit gis nga muy wax ca ñu nekkul ci ay jullit mu ne fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakata fa ixwaanukum fi diin gis nga fa in taabu suñu tuubee waaye suñu ci waaye gisoo leen ñuy julli ñooñu tax ñu nekk sa mbokk sa mbokkum julit kon nit koo jàppee mbokkum julit dëgg il faut nga gis ko muy julli waaw innama waliyukum allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna alsala wa yu'tuuna zaka wa hum raaki'un ñii seen péete daal nekk seen farandoo ngeen war a ànd ñoom nee mooy yàlla ak yonente bi ak ñi gëm yàlla tey julli kon ki ñuy mën a considérer ci mbooloom jullit mi mooy ki nga xam ne gis nañ ko muy julli borom bi ne yéefar yi ku ci tuub di julli fa xalloo sabilahum na ngeen ko libéré bu ko bu leen ko jàppee te prison bàyyi leen ko mu dem fa in taaboo wa aqaamu salaata wa atawu zaka fa xalloo sabilahum beneen ba mu ne fa ixwaanukum fi diin yépp sorut tawba bokk na ci yi ànd ak julli nag nga xam ne ay sart la ci yu koy taxamat mooy nag di julli julli mbooloo julli mbooloo ñu bari dañ koy sàggan nga xam ngeen ne néeg yu toll nii buñ ko dee tabax amul leneen lu ñu fiy def lu dul julli borom bi nee na wa tahir baytiya li taaifina wal aakifina war rukaa sujud li taa'ifiina ja moom masjidul xaraam rek moo ko moom foofa dong la kaaba gi ne moom la ñuy wër mais jàkka yi kenn du leen wër kon lan lan lañ ci dese ñoom alaakifiin ku fi bëgg a i'tikaaf mën ga i'tikaaf war rukaa sujud kuy rukoo ak sujud mën ngaa ñëw looloo ko tax a jóg waaye leneen taxu koo jóg ndax borom bi moo dig la ñu tabax jàkka moo wax itam lu ñu fay fii buyutin azina allahu an turfa azina allah néeg yoo xam ne yàllaa joxe ndigal ne nañ ko yëkkati waaw buñ ko yëkkatee nag wa yuskara fiiha ismuhu ñu di fa tudd aw turam wa yuskara fiiha ismuhu waaw kon borom bi moo joxe ndigal ne nañu tabax jàkk waaye nañu fa def itam lii waxam ne wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada kon ñu jël jàkka yi di ko doyee leneen loo xam ne bokkul ak jaamu yàlla loolu ña ngay def ca jàkkal leneen loo xam ne bokkul woon ak la ko tax a jóg ku fay tere itam loo xam ne ci jaamu yàlla la jëm muy zikrullah te zikrullah tasaare xam-xam ci la tàbbiwaale jàkka liñ koy dundale bokk na ca jaamu yàlla waaye bokk na ca itam tasaare xam-xam moom la borom bi naan waman azlamu mimman manaa masaajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa saa fi xaraabiha fi xaraabiha jàkka ku tere ñu tudd fa turu yàlla tere ñu jaamu fa yàlla wala ñu jàngale fa xam-xam l'islam nee na yow yaa rappal jàkka ja jàkka ja bu feesee dell ak mbooloo it rapp na wasaa fi xaraabiha am na xaraab kon la koy dundal mooy la taxoon ñu defar kon jullit mbooloo borom bi moo ko digle ne war kaa o ma arrakiin ba am ci borom xam-xam yi sax ñu ko jàppe ñoom farata ñeneen ñi jàppe ko sunna mu akkada abu hurayra radiallahu anhu nettali na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na salaatu rajuli fil jamaa tad'ufu ala salaatihi fi baytihi wa fi suuqihi xamsan wa ishrin di'fa wa dalika annahu ida tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma xaraja ila almasjid la yuxrijuhu illa as-salaat lam yaxutta xutwatan illa rufiat lahu biha daraja wa xutta anhu biha xatia fa ida salla lam tazal almalaikatu tusalli alayhi maadaama fi musallahu allahuma salli alayhi allahuma arhamhu wala yazaalu ahadukum fi salaatin man tazara salaa muttafaqun alayhi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki julli gi mu julli ci mbooloo appee na julli gi mu julli këram appee na julli gi mu julli ca marché ba wala ca atelier wala place liggéeyu kaayam ñaar fukki yoon ak juróom mu ne su nit ki jàppee njàpp mu rafet dal di génn jëm ci benn ci jàkka yi te nag julli dong nag tax koo jóg leneen tax koo jóg nee na jéego bu mu jéego yàlla dana ko ci yëkkatil daraja dana ko ci sippil ñaawteef ba ba muy egg ci jàkka ji moo tax lu sa barab gën a sori jàkka ja rek say tuyaaba dal di gën a yokk mu ne nag su jullee malaaka yi duñu deñ di julli ci moom li féeg mi ngi toog fi mu doon jullee malaaka yi di wax ne allahuma salli alayhi allahuma arhamhu yàlla yàlla nga ko doole xéewal yàlla yàlla nga ko yëram mu ne kenn ci yéen itam du deñ di am tuyaabay julli li féeg mi ngi xaar julli mi ngi xaar julli am na ñoo xam ne euh, bañ a yàgg jàkka ja dana tax sax ñu tardé julli tuuti rakka bu njëkk da leen ngir bañ a yàgg jàkka ja waaw te xamuñu ne ñëw toog def sa tahiyatul masjid toog di xaar julli gi am na tuyaaba lool nee na li fekk yaa ko def nga mën a jëlub kaamil jàng wala nga nekk fa di tudd yàlla loola moo gën ci yow fuuf euh, di tarde wala nga nekk ci beneen jotaay boo xam ne jàkka ji moo ko gën ci yow ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ida raaytum rajula yaataadu almasjida fashhadu lahu bil iman nee na su ngeen gisee waay daal benn waay nee na mu tàmm jàkka lool bari lu muy dem jàkka lool nee na kooku mën ngeen koo seedal ngëm yàlla am ngeen ci pro am ngeen ci dalil ndax lan suñ boroom moo ne innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir wa aqaama alsalata wa ata zaka walam yaxsa illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin borom bi ne kii dundal jàkkay yàlla dundal dundal gën mooy jaamu fa yàlla parce que benn barab bu ne la koy dundal mooy def ca lañ ko doon doyee barab boo xam ne lañ ko doon doyee ña ngi ko fay def barab baa ngay dund waaye barab ba lu mu xumb xumb teel waaye doyewuñ ko woon lii barab boobu dundul dafa dee farab mu ne kiy dundal jàkka yàlla nag foo ko fekk ku gëm yàlla lay doon gëm ne yowmal xiyaam day ñëw te foo ko fekk taxawalkatu julli lay doon nag ndax kenn mënta dundal jàkka te doo julli wa aqaama salaata wa ata zakat walam yaxsa illa allah il faut mu dooni nit koo xam ne yàlla dong lay ragal ndax jàkka yàlla dong nga ko moom kenn ku fa am personnalité amu fa ñëpp fa yem waaw boo meleen noonu nag bu fekkee nag am na yow ñoo xam ne da nga leen di ragal boo ci biir jàkka boo leen gisee dal di bëgg mel na nekkatoo ci jàkka mel na ñoom nga dal bëgg a jaamu kon yow mënoo dundal jàkka parce que yaa nga fay def lu ñu dafa santul bu boobaa kooka la la andi ca moo ko fa andi rek ak lu mu lu lu mu rëy rëy ci daraja ba tax na lenn loo ko fa war a defal moom amut leneen loo koy defal négal ba génn négal ba génn feneen bu bu deelu la sari amay defal ko waaye bu dee ci biir jàkka moom moom sab ndaw la rek da ngeen di bokk ànd def jaamug yàlla ba jaamu yàlla nga jeex waaye keneen amu fa dara fala tad'u ma allahi ahada kenn du fa nekk di bàkk kenn wala di naw kenn wala di jay kenn déedéet waaye borom bi tabaraka wa taala rek mooy ki nga xam ne moom lañ fa war a tudd abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na laqad ra'aytuna wa ma yataxallafu an salaati illa munafiq qad ulima aw maridun in kaana la yamshi bayna rajulayn xata yatiya salaa wa qaala inna rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam allamana sunan alhuda wa inna min sunani alhuda alsalatu fi lmasjidi alladi yuaddanu fihi rawahu muslim Ablaye bi Masoud nee na ñun day nun saxaaba yi gisuñu woon kenn di tarde julli lu mooy naafiq boo xam ne ñëpp xam nañu naafiq la kooku moom bu ñu ñëwee gisuñu te ah kooku day moom xames na ko na ci naafeq yoo xam ne moom dem nañ ba xam leen nay naafeq lañ ndax seenu doxalin mu ne ñoom dong nga ciy gis ñuy tardé wala bokk feebar te nee na même ko feebar it feebar ba bu dee feebar bu yam du ko tee julli ji nee na da nga gis ko feebar ñaari gaaye koy lëng muy jëri ko ba ñëw ci jàkka ci in kaana la yamshi bayna rajulayni atta yatiya salaa kon nun du sa bopp yi métti rek wala tuut rek nga daal di tëdd ne mënumaa dem waaw war ngaa mën a jéem a essayé sax bu la ay nit mënee lëng ba nga dem sax nga dem loolu ci nga xam ne saxaaba yi ni ñuy xëre woon ci aw yiw ak ki nga ne il faut ñaari lëng ko mu doog a dem julli ji hmm? waaye jar na ko ndax ñoom bu ñu déggee hayya alal falaax rek hayya alal salaax hayya alal falaax te woy jiwuñu loolu mënatuñ koo xaar tey fi ne bu ñu ñëwoon fee dañ faa taxaw di séddale xaalis ñu ne aywa ñëw leen ci xaalis bi ki feebar ki feebar dana jéem leen maa diine rek <laughs> waaye ñu ne ku kenn du ko yóbbanti nag ku ñëwul rek doo jot tawal ki feebar dana ne diri leen ma war da nga boobu ku ku diri ku ba dem waaw kooku moom lu lu wér a wér la waaye nag bu dee julli gi mu ne ah man mënumaa dem ngant lu néew a néew a mu daal koy def ngant bu amee gan tax na damaa amee gan gan yi àndal ak ñoom ngeen julli ji waaye waruñu raa waruñu laaj wala buñ julli jiwul nga bàyyi leen fa leen ma dem te ñëw kon waaye loo am lu tuuti tuuti rek ne du du ma dem ca mbooloo ma ah kooku saggane jullit mbooloo la sàggane julli mbooloo nag garaaw na moom itam lool ay tëkku am na ci ndax dafa bokk ci gay naafiq borom baa ngi melal naafiqi ne wa ida qaamoo ila salaati qaamoo kusaala kusaala naafiq yi bu ñu jógee jëm ci julli dañuy tàyyeel xam nga ki tàyyeel kay julli ci biir néegam sax tàyyi na ci kooku waaxu ay diggante yu sori dem ca jàkka ja loolu la gën a tàyyeel borom bi ne wala yu wala yatuuna salaata illa wahum kusaala du ñu dem ca julli ga lu dul fekk nañu ànd ak tayyi lool duñ ca sawar bu ñu amee wenn lay wu leen mën a téye ca kër ga rek ñu daal di toog foofu abu xurayra nettali ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna asqala salaati ala almunafiqin salaatu lisha wa salaatu lfajr walaw yaalamuuna ma fihima la atawhuma walaw xatwa wala xad hamamtu an aamura bisalaa fa tuqaam summa aamura rajulan fa yusalli binnaas summa antaliqu maci bi rijaalin maahum xatmun min xatab ila qawmin laa yashhaduuna alsalaa fa axriqa alayhim buyutahum binnaar muttafaqun alayh yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli gi gën a diis ci naafiq mooy jullig fajar ak jullig gee nee na kooku moo gën a diis ci naafiq yi kooku mu naa fekk mën naa tappale sax ci ci des waaye julli geeg julli fajar moom surtout julli fajar nag julli fajar moom moom moo gën a jafe moo tax nga gis ne moom rek la ñuy noddal te wax waxtoom du jot moom rek la ñuy noddal te wax waxtoom du jot ngir rek di la avertiser bu jegee itam moom rek la ngay dugal ci noddam naan asalaatu xayrun min an nawm waaw julli day moo gën nelaw yooyu ngeen nekk duñ ko wax ci geneen ngir rek di la ne danse bu rëy la pour ñàkk a julli kon nit ki war na ci yar boppam ci di ko waajal di teel a jóg di jiital sax ay naafila ngir julli googu bañ koo faat ngir mu mën koo julli ndax kat mooy julli gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne malaaka yi nga xam ne ñooy taaxub ñooy wutante ci nit ki kenn ku ne nga am malaaka yoo xam ne ñooy nekk ci yow di la garde bokkul ak malaaka yi lay bindal borom baax wax suratul raam lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfazuunahu min amrillah am nga malaaka yoo xam ne yaxfazuunaka min amrillah ñoo lay aar ci dogale yàlla yi musiba yi wàcc ci kaw suuf yu garaaw yi te fekk yow da nga war a mujj malaaka yooyu ñoom yi nga xam ne ñoom la borom bi tabaraka wa taala boole yow ñu di la aar mu ne malaaka yooyu nag ñi ngi wuutante ci jullik fajar ci lañuy daje ci yow ñi fanaanoon ci yow bu julli fajare ñu dem ñiy yandu ci yow bu julli fajare ñu ñëw dama nan wa qur'aan al fajri inna qur'aan al fajri kaana masquuda kaana masquuda al qur'aan fajar day lu ñuy teewe la malaaka yooyu bokk na ci ñi koy teewe moo tax sax nga gis ñu sopp lool julli fajar kuy guddal njàng bi julli fajar ñuy guddal njàng bi di jàng njàng mu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax malaaka yooyu li teg ñi ngi fi ñoom ñi ngi julli ci ngi ñaanal nit julli ñi leen di ñaanal yàlla jéggal leen euh, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne naafiq yi bu ñu xamoon li nekk ci ñaari julli yooyu julli gée ak julli fajar nee na kon danañ ca dem doonte dañuy raam kon loo tële tële tële doonte dangay raam da dem julli ji fajar wala nga dem julli ji gée mu ne nag doon naa bëgg a yittewoo sax digal dig la julli gi ñu li ñu taxawal ma digal kenn ci yéen mu jiite ma daldi dem ànd ak ay gaay yu yanu say mat ma dem ci kër ñi nga xam ne dañuy des ci kër ya bañ a julliti ma lakk seen kër yi ci seen kaw yonente bi sallallahu alayhi nee na loolu doon naa ko bëgg a yittewoo xool yonente ni mu amee yërmande ci nit ñi borom bi ne xarisun alaykum bil muminina raufun rahim ku xër la ci yéen ku leen yërëm la ku leen ñeewant la kon su demee bay bëgg a yittewoo loolu lakk nit ñi ci seen biir kër yi kon lañu def lu garaaw la lam leen nar a lakk googu ko gën ci ñoom parce que léegi nag yërmande lu metti lay doon parce que yërmande su fekkee kii li koy bëgg dal lu rëy rëy rëy la soo ko defalee musiba mu metti mii mu musal ko ci musiba mu mag moomu boobaa yërmande ji mooy defal ko musiba mu yem moomu wala léegi nga gis docteur léegi-léeg ñu ne kii lañ dindi ab cëram xam nga loolu lu metti la waaye ñu ko dindiwul woon gis nañ ne kat fa muy egg ak moom dindi benn cër rek te mën a dem moo gën bàyyi ko far mu far benn cër mënatu la dox far ah kon booba man nga ne ah waaw ñii dañoo soxor de ñu ñëw daal daal di dindi cërub kii li daal lu soxor la mais soxor boobu métti woowu keroog mooy yërmande ah buñ ko yërmande ah bàyyi leen ko rek noonu bàyyi leen ko rek ah dana mujj egg foo xam ne ah dana métti lool moo tax kon sawaraw àdduna wi lu mu métti métti métti métti moo gën sawaraw yowmal xiyam ndax sawaraw àdduna moom dalay daal di rey boo ci lancee lakk bu ma tax dix minutes nga dee te boo xasee dee moom yëgatoo amma sawaraw yowmal xiyaam nag borom bi ne summa laa yamuutu fiiha wala yaxya kullama nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan xayraha li yazuqu alazab kooku musiba la nee na saa bu yaram bi ñoree ba ñor xam nga yaram bu lakk-lakk bu ñoree ba ñor sax borom duutu ko yëgati borom bi nee na saa bu ñoree ba ñor ma defaraat ko mu nekkaat yaram bu beesaat yaram yi ci biir sawar day beesaat waaw bu nekkaat yaram bu bees mu tàmbalee te mel ne mi ngi doog a dugg tey la doog a dugg lii sooxul asar ngir mu mos mbugal bi wala yaasu billah yàlla ci yàlla mosul ñu jële ci ibnu abbas radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sami'a nidaa falam yatihi fala salata lahu illa bil uzr xadis boobu ibnu maaja ak xaakim solo nañu ko bi sallallahu alayhi wasallam ku dégg ak noddu te amul ngànt nee na kooku amul julli julleem day wérul wala bu wéree matut ku dégg ak nodd ba noppi amoo benn ngànt toog julli jiwoo kooku sag julli moom du mat bu wéree du mat ndax laa salaata dañ ko firee laa salaata kaamilatan maanaam julli ga nam war a mate dëgg dëgg dëgg dëgg daal matewu ko gannaaw demul ca jàkka wa an abi darda radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min salaasatin fi qarya wala badu wala tuqaamu fihim as-salaa illa qad istahwada alayhim ash-shaytaan fa alaykum bil jamaa'a fa innama yakulu dhi'bu min alganami alqaatiya rawahu ahmadu abu daawud wa nasaa'i yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul ñett ñoo xam ne ñett ñoo xam ne dañ nekk ci ab dëkk wala sax ñu nekk ci àll te nee na duñu taxawal jullig mbooloo lu may ko nekk di beru jul julli nee na lu dul ne seytaane dana leen daal di jekk illa stahwada alayhim seytaan mu ne kon nag fa aleykum bil jamaa maa ngi leen di dénk mbooloo na ngeen di taqoog mbooloo te mbooloo mi ngi tàmbalee ci ñett mu ne till kat li muy lekk ci ak jur mooy ba fedd géew xar yëg bëy yi fi ñu àndoon dem ak till gis leen du ñemee jekki-jekki rek attaque biir coggal gi benn yoon rek dugg ci ndax du xam yu am doole yi fu ñu féete waaye su amee benn bu génn nee nag bàyyi coggal gi rek foofu la koy dal di fàtte fi sax nit ki itam noonu la lu mu ñàkk-ñàkk xam-xam ak lu mu néew néew doole bu nekkee ci biir mbooloo jullit ñi seytaane du ko ñeme da koy moytu sax ndax danaan bu ma ko yàqalee gaa yi daal di koy gàggante mu doxee ci xam ko far waaw kon dama koy bàyyi tey mu baax la bii yoon rek euh, bu ëllëgee bu tàggoog gaa yi nag ma yàqal ko waaye bu nee ci biir nit ñi moom du la bëgg a yàqal du la yàqal ndax bu la yàqalee nga daa def erreur bu rëy nit ñi dalee wala ah yow kan li nga def njuumte la nangam nangam ne ah man xaw ma ko la waaw nii kon bu ëllëgee même boo ñibbee sa kërit moom boobu moom boobu mas ala xas na dugg moom te moom li mu mooy ak réer nit ñi réer bañ a xam ñu jëlee ci Usmaan ibnu Affaan radiallahu anhu mu ne samitu rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul man salla al ishaa fi jamaa fa ka annama qaama nisfa alleyl wa man salla subha fi jamaa fa ka annama salla alleyla kulla rawahu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan ibnu Affaan radiallahu anhu nee na dégg na ko mu ne ku julli gee ci mbooloo nga julee gee ca jàkka ja ci julli mbooloo ma nee na mel nga ne naafil la nga genn wàllu guddi gi am nga tuyaaba jot su fajar jotee nga del ci waat julee fa nag am nga tuyaabay la guddi gi yépp ne kon julee nga fa gee julee nga fa fajar kon dangay am tuyaabay koo xam ne guddi gi yépp daf koo naafil muslim nettali na ci saxi xam ne anna rajulan ama qaala ya rasul allah laysa li qaid yaquduni ila almasjid fa saala rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam an yuraxisa lahu fa raxasa lahu fa lamma walla daahu fa qaal hal tasmau nnida qaala naam qaala fa ajib maanaam pour ñuy jàpp ne ngantul julli mbooloo yomb na am na benn waay bu silmaxa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man day damaa silmaxa du ma gis te awma ku ma wommat ba ma mën a ñëw ci jàkka ja dama bëggoon nag kon nga may ma permission daal man ma mën a toog sama kër di fa jullee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw man nga ko def mën ngaa toog sa kër ba mu demee ba wan ko gannaaw di dem yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw eh ndax da nga dégg nodd gi mu ne waaw dinaa ko dégg ne ko kon wuyu wuy si da boo déggee nodd gi daal foo mën a jaar rek wuy si ko kon nodd moom ku ko dégg ngant ba ngay am ba wuy ji woo booba ngant moom ngant bu rëy rëy rëy doon mooy feebar rek tële te feebar ba sax suñu la mënee dimbali nga dem moo gën ci yow wa an amr ibni mak maktub qaal qultu ya rasulallah anna darirun shaasiu daar wali qaidun la yulaaimuni fa hal tajudi li ruxsa an usalliya fi bayti qaala tasmau nida qaala naam qaala maa ajidu laka ruxsa ku ñëw amru bnu ummi maktum nee na dama ne yonente a sallallahu alayhi wasallam man day damaa silmaxa te sama kër dafa sori jàkka am naa ab wammatkat waaye nag dadul wammatkat daal boo xam ne déggoo na ma ak moom ni may wammate daal déggoowu moom ci loolu ci wammat maanaam wammat bi daal neexul ndax da ma may yolomalu ma mën a julee sama kër mu ne ko ndax da nga dégg nodd gi mu ne ko waaw mu ne ko kon de gisuma benn ruxsa benn jàppandal boo mën a am ba doo julli ci bokk na ci li ñuy xamee feddalikum julli mbooloo ñu demee ba salaatul xawf ba xaw xawfu am ngi ne salaatul xawf ñuy xare ragal noon yi jamono bu nekk noon yi mën nañ ñoo attaqué xam nga foofu su fekkoonte ne julli mbooloo lu woyof la dañ naan rek kenn ku ne seetal noo mën a jullee rek xam nga nit ñi léeg-léeg aw xew wuñ daje sax ay conférence yi wala yooyu bu dul jàkka léeg-léeg sax duñ def julli mbooloo da gis ñiy julli fii ñiy julli jaar fii fu ne waay jaar bu dee ci xew yeeg génte yeeg yooyu itam noonu waaw da gis fu nekk waaj ñaar ñi taxaw fee di julli kenn fee kenn fee kenn fee ndax ne aw xew la te salaatul xawf muy jullig ragal mooy suñu nekkee ci ab guerre nga xam ne noonu yi jamono bu nekk mën nañ noo song foofu bu fekkoon dina julli mbooloo lu simple la kon dañ naan kenn ku ne seetal noo jullee waaye même foofu dañoo insister ci julli mbooloo fokk mbooloo mi dañ def julli mbooloo nuñ koy defee ñaari rakka lañuy ñuy julli ndax ab xare moom day fekk génn nañu ci tukki lañu ñu nekk su ko defee ilimaan day xaaj mbooloo mi ñaari xaaj benn xaaj bi nekk di garde fi noonu yi dikke jara seen arme taxaw wala yaaxuso fiislahum wa aslihatahum nañ jël seen def attention jël seen i ngànnaay beneen kuréel bi ñëw ànd ak ilimaan ilimaan juleeg ñoom benn rakka daal di taxaw bàyyi leen ñu eggaleen seen bopp ñoom eggaleen seen bopp daal di sëlmal daal di dem remplacer ña doon garder jël ngànnaaya équipe booba ñëw kabbar ci gannaaw ilimaan ilimaan eggaleeg ñoom rakka bi ko defee woon moom moom it sëlmal moom ilimaan wala mu xaar leen ci ñenn ñi ni ko waxee mu xaar leen ñoom ñu eggale beneen rakka bi ñëw ànd ak moom taaye sëlmal su ko defee kon kenn ku ne am na ci ilimaan ab rakka moo tax ñu seddalee ko noonu bu du woon loolu ma nañ leen a bàyyi ñu def ñaari équipe bu bu équipe ñëwee jiital seen iliman mu juleeg ñoom beneen équipe ñëw jiital seen iliman muy ñaari iliman da nga ci déggee itam l'islam ni mu xëree ci benn iliman ci benn la juleen ñi maanaam nga ñaari équipe yooyu lu tee benn équipe bu ne ñu wutal ko iliman yi boppam buñ demee julli jël seen iliman ba dem garde beneen équipe bi ñëw ñoom it seen iliman julli mais loolu lay tàqalewaat jullit ñi moo tax fexe nañ bañ julli julli mbooloo ci ñaari équipe ci benn iliman ci benn iliman nga kon lislaam dafa xër lool ci bennoo kàddu jullit ñi lépp lu ci mën a jur tàqalikoo rek loolu l'islam daf koy éliminer moo tax muy bañ ay ñaari iliman borom bi nettali salaatul xawf boobu ci sóoratu an-nisa julli nag niñ ko waxe am na farata am na coobarew julli farata yi niñ ko xamee nun ñëpp tisbaar takkusaan ak timis ak gee ak suba yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne xamsu salawaatin katabahunna allahu ala al ibad man ataa bihinna lam yudayi minhunna shay'a istixfaafan bi xaqihinna kaana lahu inda allahi aad an yudxilahu aljanna wa man lam yati bihinna fa laysa lahu inda allahi aad in shaa azaba wa in shaa xafara lah rawahu ahmad wa gayru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne juróomi julli day yàlla farataal na ko ci jaam ni nee na ku def juróomi julli yooyu tànkoo ci dara woye faloo seen àq nee na am nga fa yàlla kóllëre mel na na yàlla bindal na la benn kayitu dugal la àjjana am nga boodaal am nga rosi pour dugg àjjana yàlla bindal na la rosi bu fekkee yaa ngi julli juróomi julli am nga fa yàlla daal loo mën a ware loo mën a présenté waaw waaye nag nee koo xam ne defoo ko nag fa yàlla moom yóbbuwoo fa dara yóbbuwoo dara da ñëw rek taxaw leneen ñëw taxaw ci oto boo xam ne daal bu oto dëggoo billet dëggoo dara bu noppi ne ñëw damay dugg xam nga ko dugg dañ la adressé billet boo demoon tey a dugg ci avion ne am na ñu taxaw ci buntu ba fi mu ne ku ñëw ñu jël xool nga doog a dugg waaye bu nga ñëw ak sa loxo yi kese rek ah bu leen neexee ñu yóbbaale la xanaa waaw moo tax bu ne kooku dal andiwul dara bu neexee yàlla mu jéggal ko bu neexee yàlla mu mbugal ko waaw kon julli moom mooy aam bi muy kóllëre bi dox accord bi dox sa diggante ko am na itam ne julli coobarewu julli coobarewu rek dana séddliko ñaari xaaj am na ci loo xam ne as sunanul mu akkada la dañoo feddli ko lool du coobarewu yoo xam ne rek bu la neexee bàyyi ko déedéet la ca jiitu mooy al witre al witre te ñu gën koo miine safa witar ñun tuuti dañ ci boole safa witar mais al witre mbirum boppam la ak satu moom naafile gi ngay def yépp sat la tudd boo defoon téeméeri rakka loolu sat o la tudd ñu bari nag defe nañ niñ koy waxee mooy ñaari rakk rek parce que ash-shaf'u mooy paire witre mooy impaire maanaam lu lu tollantiku ak lu tool lu tollantiku nag li dégg yaa ngi def ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal yooyu yëpp saf la booy jeexal na nga tëje ko witre muy benn moo tax gis am na ñoo xam ne defe nañ ne naatu la guddi moom mi ngi yem rek ci saf aw witre ñaari rakka ak benn rek daal di saw loolu mooy seen seen julli guddi defe nañ ne loolu rek la fu ñu julee gee rek daal ko fay teg ca xat xaaral ma safaam itam daal di daal def ñaar rakk rek teg ca benn rek daal di jaaxal nag defe ne guddi gi yëpp nag mën nañoo nelaw ba fajar nag ah léegi loolu gënul woon dëgg la minimum def nga dara baax na ñaari rakka yi waaye nag mënoon naa ëpp ñaari rakka ndax sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha bañ ko laajee nu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daan julee guddi mu ne moom day mësula yokk ci weeru koor ak lu dul weeru koor fukki rakk ak benn nee fukki rakka ak benn la daan naafila fukki rakka lay def andi benn tëje ko ko muy wétu weeru koor ak budul weeru la ci yemale ko weeru koor ndax salaatu rajul fii jow fi lay julli ci digg guddi fekk nit ñi nelaw kooku dafa am ngëneel lu rëy rëy rëy gis nga borom bi tabaraka wa taala euh, bi muy tagg jaamam yi nga xam ne ñoom la gërëm mu ne innal muttaqina fi jannatin wa uyun aaqizina ma aataahum rabbuhum innahum kaanu qabla dalika muxsinin kaanu xalilan min alleyli ma yahjaun wa bil asxaari hum yastaxfiruun suñu borom ne ñi ragal yàlla dañ ña nga ca biir àjjana ak dexee aaqizina ma aataahum rabbuhum ña ngay jël la leen fa yàlla defal ci xéwal lu leen ko may innahum kaanu qabla dalik muxsinin ñoom day lu jiitu ñuy ñëw foofa di dem yowmal xiyaam dañoo nekkoon àdduna doon sellal seenu jaamu yàlla waaye nag lu néew lañ daan nelaw guddi kaanu xalilan min al layli ma yahjaun xam nga foofu daf daf ko ijmaal rek ne lu néew la ñuy nelaw guddi waaye waxul bu ñu nelawul lu ñuy def foofu doxkati guddi yeeg taxawaalukat yépp mën nañ ne ah nun nekkoon ci lan bi nun day xalilan maananaam fi lay waaye borom bi nag soo demee ci suuratu Furqaan nag mu wax nag la ñuy def yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama yabituun ña nelawul luñ fanaane mu ne yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama aaya boobu mooy tafsil bële bële moom dafa ijmaal rek ne la euh, kaanu xalilan min alleyli ma yahjaun bële nag wax la la ñuy def nag ne la yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama sujjadan wa qiyaama kon dañuy fanaane naafila kon julli bu ko yamal rek sag naafila ci ñaari rakka rek waaye na def lu ko ëpp su ma nee egg ba ci li yonente bi sallallahu alayhi wa doon def ci la gën a mate muy julli guddi googu beneen bi ci julli yi nga xam ne yu fàttaliku la muy raqibatul fajr muy ñaari rakkay fajar ñaari rakkay fajar ñaari rakka yooyu ñuy julli ba ñuy julli suba ñaari rakka yu am importance la du dawal ñu bari dawal lañ naan damay dawal ñaari rakka mais bu yu fàttaliku lañ yu dëgër lañ yonente bi sallallahu alayhi wa leen a bàyyi ci bu tukkee ak bu tukkiwut parce que bu ma saa di nekk tukki yenn naa fi la yu dootu ko def waaye ñaari rakkay fajar yooyu moom mësu koo bàyyi moom raqibatul fajj boobu kooku itam mbokk yi nañ ci góor góor lu baax da nga gis ñu bari dañuy tabde ba dañuy nekk ba julli gi jot ba julli ba pare sax di ko doog a fayat loolu càggante la càggante la nga war a yeewu am ci waxtu loo xam ne dana jot nga man koo def kooku def ko sax ñëw tardé fekk ca ilimaan ab rakka raw la ca julli suba ga sax nga ñëw eggale moo gën nit ba noppi di ko doog a def def ko ci sa kër mu leer la na xay nag julli ga du jeex xëy na rakk bu njëkk ba mën na laa raw waaye soo ñëwee da nga fekk ilimaan nga eggala la des ca julli ga moo gën daal di patam patami ñëw rek daal di ànd ak ilimaan directement ci julli gi ba noppi nag di ko toog di di ko doog di julliwaat moom nag bokk na ci naafila yi ñuy fay xam nga naafila yi suñu faatee kenn du leen fayaat waaye moom dañ koy fay ba zawal mën nañ ko fay ba zawal ba ba digg bëccëg bokk na ca ñaari iid yi kooku itam yu fàttaliku la julli kori ak julli tabaski julli yooyu ñu ci julli sunna mu akkada la sunna bu dëgër la sunna bu dëgër la boo xam ne moom itam bu jara toppatoo la bokk na ca alkusuuf wal xusuuf muy su weer wi muuroo ñun ñu di ko tudd nu naan weer wi dañ koo jàpp waaw mais weer kenn jàpp ko dafa muuru rek islam noonu lañ koy tuddee dafa muuru bu muuroo nag am na julli gu ñu war a julli julli googee nag du julli mbooloo moom julli weer wi moom du julli mbooloo bu muuroo rek duggal sa néeg nga julli ñaari rakka comme ni ngay naafila nag di tudd yàlla di jéglu yàlla su fekkee jant bi moo muuru nag kooku moom la ñu sunnaal mooy julli mbooloo kooku moom julli mbooloo la ñu woote ca jàkka ja ñu daal di jiite julli julli goo xam ne nag julli gu yàgg lay doon benn rakka bi day am ñaari ruko benn rakka bu ci ne dañuy jàng jàng jàng ba rukkoo rukkoo bi dañ cay yàgg ba mu xaw a mel na lañ taxawoon bu ñu siggee ci rukkoo bi jàngaat doog a rukkoo waate ci beneen rukkoo doog a sujjoon nag bu ñu jógee ci deuxième rakka bay ñu def ko noonu ñaari taxawaay lay doon waaye benn taxawaay bu ci ne am na ñaari rukkoo ak ñaari njàng kon boo ko seetee da xaw a mel na ñeenti rakka yu ñu dugal ci biir ñaari rakka xam naa julli googu rek moom daanaka moom dañ ko xaw a rey ndax dafa dafa xaw a gudd day xaw a daanaka duñ ko faral di def dëgg la xëy na jant bi nag li muy muuru moom bëriwut jant bi li muy muuru moom bëriwut su amee balaa amati dana yàgg lool waaye su amee daanaka nit ñi duñ ci def attention xëy na li mu leen di fekk bëccëg ñee nga fa ñuy liggéey ñee nga fee ñee nga fee ñenn ñi sax duñ ko xam bu dégg ñu ko wax mais ñoom dañ naan dafa niis rek su ko defee nag ñu doon muuru woon mais yooyu ay kéemtaan la yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko firee woon nee na woon kéemtaan la ci kéemtaani yàlla yi du am ngir deewu kenn du am ngir juddu kenn du am ngir mbirum kenn parce que ñu baree baree bari dañuy bëgg a takkale yee xew ci asamaan si ak ci adduna bi ak faatub nit wala juddub nit loolu bi Ibrahima faatoo doomi yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo gis asamaan si dal di muur jant bi génn nit ñi ne ah doomi yonente bi tey la gaañu moo tax yonente bi sallallahu alayhi li ngeen di wax lan la ñu ne ko moom kay dañuy wax ne sa doom ji mu ne déet jant beeg weer wi aayataani min aayatillah ay kéemtaan lañ ci kéemtaani yàlla yi seen programme bopp lañ yor duñu muuru ngir juddu kenn ñu muuru ngir deewu kenn la ñuy def bu jotee rek la leen yàlla def la bu jotee rek dañ koy def waaw moo xam parce que loolu nit ñi dañ ko mais contradiction da ci mën a parce que mën naa muuru fekk yéefar bu bon dee ñu ne cel lu tax waxu ñu ne yéefar bee dee jant bi muuru tey wala kilifa bu baax faatu jant bi tàng jër ñëpp ne cel ah lu tax ñu ne dafa tàng tey day am di waaye su xet doon nañu ne tey tey kilifa kii fi jóge moo tax de waaye tegante ba daa tànk pourtant de bu keneen kilifaatoo bu tànk rek ñëpp ko de ci yàlla rek mel na dara xew ah wax kay ku logique kay da ngaa war a logique lu xew nga wax ko rek ah bu seddee nga ne sedd na pour ni bu tànkee nga ne tànk na waaye bu seddee nga nga wax bu bu doppee bu tànkee nga ne kon nag liy intérêt bi mooy daal jotewuñu dara jotewuñu dara ndax loolu bu jote kon ah nit ñi mën nañu nekk ci erreur mën nañu gis ku baax ku ñu yaakaare woon ak mbaax lool mu jógee ci jant bi tàng jër ñu ah waaye njëkkee diw moom li yaakaaroon ci boobu amul wala ñu gis kàccoor bu bon a bon mu jógee fi asamaan si yendoo niit ñu ne ah dikay waa ji ku baax la am ku daal di bëgg a mel na meloon ne ah comme waa ji kat yi nekkoon bi mu faatoo teewul jant bi génn kon ku baax la moo tax yooyu yàlla tëkku ci mbir yi mbaax geeg bon gi daal ñi ngi koy xamee ci alxuraan ko xam ci ab jant wala weer wala yooyu seen programme bu bopp lañ yor ñoom ñun nag yàlla moom bi dafa am lu nu sant ñoom ay jaam lañu am lu leen yàlla digal ñu nit ay jaam lañ am lu nu yàlla digal li nu yàlla digal nag doo ko seet sa meneen moroomum jaam moo bokkal ñoom du ñuy nit seen geneen jaamu yàlla lañ yor ñoom jant beeg weer te ñoom duñ mooy borom bi tabaraka wa taala la samsu yanbaqi laha an tudrika al xamar wala leylu saabiqu nahar wa kullun fii falakin yasbaxun kenn ku ci nekk mi ngi ci fëlëgëm ma nga ca tuur bañ ko teg di ko wër du ko wàcc moom yow doomu aadama nag yow yow am na fuñ la teg yow it demal jaari fa waaye nag ñoom di leen ko naan ñoom def nañ léegi def nañu naa te yow defoo la nga war a def kooku moom du ak nite euh, ba tey bokk na ci la yooyu nga xam ne mu akkada la sunna yooyu salaatul istisqa jullik baaw naan mooy yooyu yëpp ay sunna la yu ñu rey yooyu néewaa na ngay gis nit ñi di ko julli gis bu bu baaw naan amee ci jaahiliya la ñuy daal di dellu jigéen ña dem sol mbubbi góor sëlamoo ay këriñ jigéen góor ña dem sol mbubbi jigéen ñuy tëgg ka fecc naan dañuy baaw naan loola la ñuy def wala sax ñettane ñettane nga xam ne moom bëgg nañ koo diineel ñu woote ca jàkka ja nañ wàccee kaamil dëgg la wàccee kaamil baax na mais loolu yonent bi diglu ko ko du ko sunna du fa sunna doo ne nangam baax na rek mel na da ngay làmbatu mel na yonente bi da ciy waxul dara lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax dara bu jotee demal defi loola bul làmbatul sa bopp di bindal sa bopp ordonnance bind na ba pare lu xew kaa bi na yonente bi sallallahu alayhi na ci def leen lii bul bindal sa bopp bul ne ordonnance bi man daal alquran moom day daal daal ne nañ ko def def gi nga koy def mel ne dafa amul parce que soo ñëwee teg nga ko ci kaw sunna sa dañuy ñëw yàlla ko julli kaam te kenn du julli te dañoo waroon a julli salaatul istisqa ca àll ba duñ ko defee sax ca jàkka ja dañuy def àll bu ne dan dan ñu jullee ko mbooloo mépp teew ñu julli toroxlu foofu ñaan yàlla loolu moo fay sunna loolu moo fay sunna ñu baree baree bari ci noonu ko ci laajoon koo koo mas a fekkee salaatul istisqa jullit baaw naa ndax mas ngaa fekkee fu muy amee naa la masuba ñu baree ko fekkee waaw mais fekke ba tey ma gis ñuy tëggi pot naan dañuy baaw naan nag waaw kooku moom moom ku ne ku ne fekke nga ko ba tay moom waaw kon moo lay xamal ne euh, dañuy fab ay bidaa di ko teg ci kaw sunna kon julli googu itam lu mat a dundal la euh, yi nga xam ne nag moom nekkuñu mu akkada bokk na ca taxiyatul masjid taxiyatul masjid nuyoo jàkka moom nag day julli goo xam ne dafa irti dafa am sabab dafa am sabab du fa ne nga ko mën a defee kenn mënta nekk sa kër naam damay def taxiyatul masjid moom ñaari rakka la yoo xam ne dañ koy nuyoo jàkka jàkka boo duggsee li nga koy war a nuyoo te boo nuyoo jàkka ja nuyuwaale ga ña fa nekk ñëpp dugg ci jàkka bëgg a jox nit ñi ay loxo ña doon tasab ci seeni baaraam nga dagg lañ doon tasab ña yoroon di kaamil di di obligé di tëj kaamil ba di la di la nuyu yooyu yëpp jaru ko boo essayé boo defee tahiyatul masjid rek nuyu jàkka ji rek nuyuwaale ga ñi nga fi fekk ñëpp parce que fii néegub yàlla kon soo excès da ngay def ñaari rakka doo toog jàkka ku ci dugg doo toog te defoo ñaari doo toog yonent bi la bu mu toog te deful ñaar rakka même boo doon bëgg a dellusiwaat bala ngaa toogaat da koy defaat boo fi duggee te narta du génnoon léegi am koy waxal duggaat ci biir amul droit toogaat te defaatoo ñaari rakk julli boobu nag comme dafa am sabab moo tax borom xam-xam yi gën a bari notal ci ne moom amul temps même heure yi ñu naan duñ ci naafil la moom tahiyatul masjid boobu li gën a li ñu gën a tarjeex mooy bokk ci moom foo duggee ci jàkka parce que yonente bi sallallahu alayhi ba mu ko waxee isaa daxala ahadukum almasjida fala yajlisanna atta yarka arakaata yi da koo tawkiid te wutalu ko istisna nag gisul beneen loo xam ne moo ko moo ko moo ko moo dindi waaw kon alaam bu ñu gisul lu ko taxsiis day des ci umum bi ba tey kon ku dugg ci jàkk rek da ngaa war a julli ñaari rakka même ba ci ilimaan sax day xutba ndax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa def na ko ci jamonoom muy xutba benn waaye dugg si daal di toog ndax jàpp ne comme dañuy xutba bu mu julli mais dafa dagg xutba bi ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko julli ñaari rakk xam nga li jaral yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu dagg xutbaam loolu loolu dul dul dul dul dul ndaw dëgg la nag ci masabu Malik siiw na ci ne dañ koo sit mais masabu Malik ñoom il faut ñu xam ñoom ni ñuy jàngalee ñoom dañuy jàpp ne li gën a bari ñoom awaam yi la ñuy jàngal boo gisee seen ma seen i masala ñaari ñu ci indi ay dalil xam nga borom xam-xam dëgg boo koy jàngal booy former nit boo loo ko wax da nga koy andil dalil bi mais société kutub yu bari yu ñu taalib si bu Maalik du ñu tudd addilla yi moom borom xam-xam bi dana ko xam mais ko lu mel ne tey risaala tey doo gis mu tudd la benn hadis wala benn aaya alquran du ko tudd nga dem ci wax tasaw sayu xalil du andi ay addilla ndax day jàpp ne ñi ay awaam la duñ nit ñoo xam ne nit ñu xam-xam nit ñoo xam dañ leen di wax dara rek ñu dem defi ko dem commerce wala ñu bàyyi wala ñu defi leneen waaw amma ñi nga xam nag dañoo bëgg a nekk ay borom xam-xam dëgg ñooñu moom ku leen di jàngal loo leen wax da ngay wax masala bi fi mu tegu ci hadith fi mu tegu ci alquran amma ki nga xam ne nag moom mënu koo jàpp moom wax ko rek ne ko demal defi nangam ne ko daal farata nangam la mu mu liba koo xam ne boo ne ko woon farata bu njëkk bi mu la ah déet dañ ne farata julleeg yéene kabaro armal jàng fatiha mais mënu ci andi benn dalil loolu nag moo tax ñoom comme dañu jàpp ne awaam yi la ñuy jëfandanteel du ñu dugg ci ay détails moo tax ñuy leen di tëjal yéen bunt yi léeg-léeg parce que comme déglu xutba bi dafa am importance ndax xutba bi moom bokk na ci li tax ñu farataal àjjuma te bu fekkee yolomalal nit ñi ñuy tardé bay ñëw ci biir xutba bi di ci julli di mën a empêcher ñeneen ñi ba duñ mën a déglu xutba bi moo tax ñoom ñu far ne rek sib nañu ku kuy julli ci biir xutba bi waaw mais sib googu sibu tansih rek li ñuy tuddee karaaxatu tansih sellal ngir pour bañ rek lu bëgg daal li gën a baax am maanaam nit ki farlu ba di dem avant ilimaan di xutba waaye nag su fekkee am nga gaar gaar nag wala xat-xat ba egg si nag ah loolu nit ñi nañ la bàyyi nga jul waaye da nga fi ñii di fottatu ñii di xëcc say mbubb te buñ leen laajoon lu mu dañ naan dañ ko teer rek dafa aaj te looy tere nit ki war ngaa xam dalil bi waaw looy tere nit ki moom war ngaa xam dalilu li tax ñu di ko tere lu mu doon kon tahiyatul masjid euh, lu am solo la lu madd def la <coughs> euh, sart yi nga xam ne nag mooy surutu wujubi salaam mooy tax nag julli war ba ca jëkk mooy al islam mooy nit ki fokk mu dugg ci lislaam julli doo ko war ab yéefar du ne rek na jullit ñi ni may ni ñuy julli def maa neex may ñëw di ànd ak ñoom ci julli gi ñu naan moom ku baax la bu ñuy julli day ànd ak moom nit ñi moom lu keneen def ànd ak ñoom rek ñu ne moom ku baax la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yebal Muaz yaman daf ko wax ne fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa in ataau laka bi dalik fa axbirhum an allaha qad farada alayhim xamsa salawat fi kulli yawmin wa layla rawahu albuxaari yonente bi sallallahu wa dafa wax Muaaz ne ko yaa ngi ñëw ci nit ñoo xam ne ay jàngkat lañu na nekk la nga leen di njëkk a woo mooy nañu seede ne yàlla rekk mooy buur bi ñu war a jaam nañ seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa bu ñu la wuyoo ci loolu na nga leen xibaar ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli kon loolu tax ñu gis ne kon islam sart la ci gis nga daf ne ko fa inhum ataau laka bi dalik bu ñu la nangulee ne yàlla rek kay boobu mais bu ñu ko nanguwul bul jàll ci julli bu ñu nanguwul tawxid ne yàlla rek mooy yàlla bu ñu ko nanguwul bul jàll ci julli parce que sart bu njëkk bi amut mooy al islam amut ñaareel ba am xel ab dof kooku julli waru yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne rufi al qalamu an salaasa an naaim ata yastayqis waa ani sabi atta yaxtalim wa anil majnun atta yaqil yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñetti nit kenn bindalatu leen bakkaar kuy nelaw ba ba muy yew ab dof ba ba xel may dellu siwaat gone ba ba muy mësër ñett ñi kenn du leen bindal dara ñetteel ba kon mooy ak mukallafe il faut nga mat mukallafitam julli doo ko nekk lu war ci yow waaye nag du tee ñu di la ko digal ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne na ngeen digal gone yi julli bu ñu amee juróom-ñaari at ndax julli dafa diif il faut ñu tàggat la ci suñu amee fukki at nag na ngeen leen ci duma sax bu ñu bañee julli ngeen di xoolal li ñuy duma nit te nekkagul farata ci moom xam nga loolu lu la waaye ñi ngi koy fegal bañ ëllëg mu nekk farata ci moom fekk ya tàmm booba duma yi moo gënoon ci moom dumay dumay ëllëgee ñu ko nar a duma bu bokk na ca sarte tam nag waxtu wi dugg julli nag loo ko bëgg a bëgg a def te waxtoom jotut doo mën a julli ndax inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta bokk na ca sarte itam bu dee jigéen mu set ci reg baax jigéen kat bu waxtu wi jotee te mu gis baax kon moom mën te julli ndax sarte yi matut ci moom wala mu am doom te setul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ida aqbalat xaydatuk fatruki salaa muttafaqun alayh jigéen bu ko doon laaj mu ne ko saa boo gisatee baax daal bàyyil julli ba ba ngay làpp nga doog julli sart yi koy tax wér nag yee sart mooy yi koy tax a war léegi nag sart yi koy tax a wér mooy laab ci am toj laam ci ab toj toj la woo alxadasul asqar alxadasul asqar nag mooy ñàkk jàpp mooy toj mu ndaw mooy ci dem ca wana wa rek génn tuur ndox wala mu faj aajoom kooku toj la ne toj mu ndaw kooku dafa war a jàpp wala mu tiim su fekkee tiim mooy faratal jàpp ak tiim nag nekku néewuñu tiim day wecci njàpp ci su fekkente ne tiim jàpp war ci yow su yow kooku tiim mënu koo remplacer su fekkente ne njàpp dafa waratu ci yow tiim yow tiim bi même dagara njàpp mi lay am day gis koo xam ne bu tiimee buñ ne ko sax mu naa ah ko man damaa tiim ah waaw comme tiim bi mën nga cee julli tax mënoo ci liqaam jullee gën a for li jàpp ne mënoo li xam ndax da ngaa te mën a julli loolu loolu yëfi dafa la ah, julli gi moo gën a for tiim bi comme lam may na la laabu mën a julli te ku ne la sax moom li xam da ngay laab même ku jàppul woon naa li xam waaw ah, li xam ku jàppul woon sax mën ngaa li xam boo gisoon nit ñoo xam ne xëy na amuñu mënu amuñu kenn mënu faa li xam yow mën nga leen li xaamal dem jàppi waaw te tudd baat yooyu ngay tudd sattuñ ci ne bala nga koo wax na nga amul laab mën nga koo wax kon loolu itam euh, erreur kon nit ki dafa war a amuk laab ci alxadasul asxar te mooy mu jàpp wala mu tiim su fekkente ne dafa am ngànt ngànt la nag mooy ñàkk ndox ci boo ko wutee te na ko war a wute yépp walla am ndox mi te mënoo ko laal mënoo ko laal wala soo ko laalee dana la andil lor joo xam ne ju wóor la joo xam ci saw yaram kon bu boobaa da tiim tim boobu sëñ Tuba wax na ci wax ju sévère ndax da ngay gis murid yu bari di waaye fal naan sëñ Tuba wax na bayti woo xam ne boo ko waxee rek day remplacer day remplacer njàpp waaw maddaliya tuhra bila andiati waaye soo demee ci jawhar nabi islam boo wax loolu daf ne waman bila tuhrin yusalli abada bila daruratin fasoo fisqin bada laysa lahu bisalika tayamumi yowma alqiyamati siwa jahannami waaw waman bila tuhrin yusalli képp kuy julli te yuróog laab bilaa darura te amoo ngant nee na façon fisqin ab kàccoor nga boo xam ne sa kàccoor sa ndëngte leer na nañ ñu ne ko waaw bu tiimee nag mu ne lay laysa lahu bi dalika tayamum tiim boobee du ca am dara yowmal xiyaam lu dul dugg safara waaw tiim ba nee na yowmal xiyaam dugg safara la ciy jëre kon nag nañuy wattandiku wax yi ñi nga xam ne dañuy bëgg waaye waye falal nit ki diine pour mën koo jariñoo parce que nit ki day diiñ saa bu ñàkkee diine nag daanaka day doon mala comme ni ngay jàppee ci baatam xar yi yóbbu ngay jàppee ci baatam yóbbu mais nit ki bu amee diine day am personnalité du neex a dugal fenn fi moo tax ne ci la bëgg a doyee di loo bëgg laa def surga day wayefal sa diine lu bari mën la jëlul nga di ko def soo ko defatul da daal yem ak mala yi su ko defee ne fu ko neex mu jaaral la fu ko neex mu jaaral la loolu lañ njëkk a def <coughs> euh, bokk na ci sart laab ci laab gu mag mooy ko yore janaba nga dem sangu ko yore janaba al janaba nga bu dee jigéen tam mu gis baax ba baax bi jeex njàpp dong du ko defar waaye day dem sangu farata loolu mooy tax mu mën a julli moo tax jigéen ñi war nañ leen di jàngal sangu farata bu baax a baax ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaqbalu bi xayri tahoor yàlla kat du nangu julli bu àndul ak laab rawaahu muslim ñaareelu sart ba suturaal sa awra suñu borom moo ne xudoo siinatakum inda kulli masjidin fépp fu ngeen di jullee même sa biir néeg boo fay jullee bul sore say sagar ak sa siret maag sa tubay ju gàtt ak yooyu rek ne sama néeg laa nekk même sa biir néeg la solal sa mbubb baax nga peñaw laal sa parfum julli doonte sa biir néeg ngay jullee borom bi moo ne na ngeen toilette fépp fu ngeen di jullee xutu ndax audience la booy am ak yàlla audience la booy am ak yàlla kon xudu siinatakum nee na na ngeen jël seen toilette inda kulli masjidin fépp fu ngeen di julli rawati nag booy dem ca mbooloo ma booy dem ca mbooloo ma maa ngi laa biir yi nga xam ne dañuy liggéey moo xam ay mécanicien lañ wala yoo xam ne daal dañuy yor yére yoo xam ne yooyu faral di taq lay doon ñuy dendale fa ñuy liggéeyee beneen yére boo xam ne dañ koy summi lañ doon tani booba teg ko ci wala fekkee mënuñ ko summi te xam nañ ne la ca ne ñaaw na waaye du sobe ñu fab mbubb moom a teg ci kawam pour mu rafet bu fekkente ne mbir ba taq na waaye lam taq moom du sobe waaye nag ñaaw na te it mën naa taqal nit kon boobaa nga fab meneen mbubb mu rafet mu yiw teg ci kawam boo xam ne tilim jooju du feeñ waaye ñëw ak sa tani mécanicien wala sa tani menuisier wala sa tani maçon mu taq lool ah nga ne ci biir jàkka ji mën ngaa taqal fa nga doon julee man ngaa taqal kenn koo dendal tey it melokaan bi nga yor même boo taqalul kenn dafa jëkkut daal waaw kon loolu ah, lu mat di bàyyi xel la ñetteel ba jublu xibla ndax julli bu mën a wér nag te jublu wa xibla borom bi moo ne wa haysuma kuntum fa walloo wujuhakum shatra fu ngeen mën a nekk kat seen xar kanam na ngeen ko jubale mu féete ak kaaba gi bokk na ci li nga xam ne nag danañ ko takku ci julli nag mooy alxusoo mooy am ci foroxlu ak yëg yàlla ci biir julli gi julli gu amul xusoo amul yëg yàlla jëmm ji amul ruu xosoo boobu nag muy toroxlu boobu yëg yàlla gi ci biir julli gi fépp lay feeñ boo rukkoo war na faa am boo sujootee boo taxawee fépp foo toll rek yëg yàlla googu war naa ànd ak yow ci biir julli gi bu dee ca njàng ma ngay parce que bokk na ci li lay dimbali ci xosoo boobu maanaam ngay yëg yàlla mooy làmmiñ bi du selaw làmmiñ bi xol bi nag suñu communiqué li làmmiñ bi wax xol bi di ko xalaat sa xel du mën a génn dem fi ngay kàbbare ba ba ngay sëlmal làmmiñu moom du arrêté benn yoon julli làmmiñ du arrêté benn yoon allahu akbar yaa ngay jàng duwaaw istiftah yaa ngi commencé jàng fatiha yaa ngay jàng saar bu jeexee nga ne waat allahu akbar boo rukoo yee yaa ngay sàbbaal boo siggee sami allahu liman amidahu yaa nga sujjóot yaa ngay sàbbaal boo siggee ba ba ngay taayee ba ba ngay sëlmal baat yooyu ngay wax ci biir julli gi nag soo ci dee bàyyi xel di xam maanaa mi xol bi dana mën a ànd ak julli gi xol bi dana mën a ànd ak julli gi moo tax maa ngi toxal ay bayti yoo xam ne Serigne Touba moo ko wax ci jawharu nafis di ci wax nit ki ni mu war a amee xusoo ci buy julli mu ne xad nasta fi taalifihi man alima bi anna lissalaati nuuran azuma xam ngeen ne jawharu nafis nag laxdar yi la ciy way mu ne am na koo xam ne wax na ci aw taalifam te mooy Cheikh Abdourahman al Akhdari nee na julli dafa am ak leer gu mag wa anna zaaka nuura tasruqu bihi qalbu musallin xaashiin fantabihi nee na leer googu nekk ci julli nag mi ngi fekk ci xolub koo xam ne day toroxlu ci biir julli gi leerub julli day fekk ci biir xolub mu ne fa in atayta fa in ataytaha fa qalbaka nshia min hadihi dunya wa ma fiha maa nee na soo ñëwee ci julli sab xol na nga ko nocc ci adduna ak mbooleem li nekk ci adduna wa bi muraaxabati mawlaaka staqil lati li wajhihi taala famtasil mu ne na nga taxal di fugloonteeg sa borom jàpp na yaa ngi taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala yàlla moomu ga xam ne moo tax ngay julli mu ne wa'taqidan anna salaataka xudoo bi sajdatin wa bi qiyaamin wa rukoo wa annaha tawaadu'un lillahi subhanahu fa ma lahu mudahi mu ne na nga fas ci sab xol ne julli gii du ak maaj juli du maaj julli du ay muumaa yoo xam ne da nga koy def rek pour sportif wala pour dëgëral saw yaram waaye na nga xam ne julli gi nee na ak toroxlu la toroxlu gi ngay toroxlu yàlla ci rukkoo yi rukkoo sujjóot yooyu da nga ciy toroxlul borom bi tabaraka wa taala nga jàppe ko noonu aydan wa ijlalun wa taatimun lahu bil xafdi wa takbiri raai kullahu mu ne ak màggal yàlla it mi ngi ci ci sëgg gi ngay sigg sëgg ak a siggi ak di ko kabbar looy def lu ne nga ne allahu akbar muumaa booy kooku bu ne jëm ca morom ba nga ne allahu akbar kon yaa ngi màggal borom bi tabaraka wa taala mu ne laa tatruki sheytaana an yalaba bil qalbi laa tamil lahu fa tuxtaba mu ne bul bàyyi mukk seytaane muy fo ci sab xol kon bu ëllëgee kat des na la yedd li annahu yatmisu nuura qalbika wa laddatan min nuuriha moomu kat day far leerug julli ci sab xol te itam dalay xañ bànneexub julli mu ne alayka fiha bi idaamati alxusuu wassuhdi fi umuuri dunya walxudu mu ne julli gi na nga ci saxal ak toroxlu ak dëddu mbiri adduna sam xel na nga ko fóot ci adduna ba mu set wa alam bi annaha an ilfaxsaai wa munkarin tanha bila xafaai lakin za bi shart bi sababi alxusui la bi xayrihi faxsa wa naa il malala mu ne wa alam xamal ne moom julli kat bi annaha an ilfaxsaai wa munkarin tanha day tere lu ñaaw ak lu bon waaye mu ne lakin za bi sababi alxusui laa bi xayrihi faxsa wana il balala mu ne kat julli gi lay mën a tere lu bon def loola lu baax mooy julli goo xam ne am nga ci ak yëg yàlla am nga ci ragal yàlla waaye julli goo xam ne da ngay sëddata si gi rek kooku julli moom mu ne fakun bi rabbikal muini zastiaan wa in bi xayrihi istaanta laa tuaan mu ne kon nag dimbandikool sa borom ci loolu mu may la ak teewlu ci julli gi nee na boo dimbandikoo keneen kat dee su la dimbali fa kun bi rabbika al muini tastiaan wa in bi xayrihi istaanta laa tuaan boo dimbandikoo keneen ku dul yàlla nee na doo am dimbal mu wax ci beneen barab ne wal muminu al muxlisu wattuqaa ida qaama ila kulli salaatin tabada bi qalbihi an kulli amrin dunyawi wa kullu ma siwa al maliki al muxtawi nee ku gëm yàlla te sellal te ragal yàlla saa bu jógee jëm ci ak julli dana génne ci ab xolam lépp loo xam ne mbirum àdduna la ak lépp loo xam ne du yàlla mu ne wa taraka dunya wa ma fiha walam yakun li shay'in taltifatin min himam nee na day bàyyi àdduna ak mboolem li ci ne du am benn yitte bu muy xalaat wali jalaalillahi rabbil xalqi yuxdiru bil xalqi bi qawlil xaqi nee na màggu yàlla gi lay teewal ci xolam nu mu koy teewalee ci alquran ji muy dégg alquran ji benn nga di ko jàng wala nga di ko dégg ci iliman su ko defee soo teewloo alquran ji li muy wax rek dangay ngay daldi teewlu màggu suñu borom bi tabaraka wa taala mu ne ataa yasiira qalbuhu murtaida wartahabat nafsun lahu xawfa rida nee na day dem bay lox dem ba bakkanam tiit ngir ragal borom bi tabaraka wa taala min haybati ilahi jalla wa ala jalaaluhu rabu samawati wal mu ne wa kaana sa'nuhu ka xawli omara man bi tuqaa wal ilmi qad ta'azzara nee na mu mel ne ni ko omar waxe woon wa kun isaa daxalta fi salaati ka misli shaxsin kaana fi lwafaati soo duggee ci julli nee na melal ne nit kuy bëgg a faatu fa haatihi hiya salaatu lmuttaqin nee na lii mooy julli di ragal yàlla al mukaramiina bil jinaanil muflaxiin muflixiin nee na ñooñu ñooy texe ñooñu la ñuy teral ci àjjana bu ëllëgee razaqana arrahmanu zuhdun wa tuqaa zuhdan wa tuqaa wal amna min kullil balaaya wartiqa mu ne kon nag yàlla nu yàlla wërsëgal ak dëgg ak ragal yàlla ak kóolute ci mépp musiba ak nag mu maynu ak yéeg ci jege sunu borom tabaraka wa taala kon nag euh, mbokk yi euh, loolu mooy li ñu doon fàttalante ci julli euh, di wax ci mujj nag de ñuy jéem a rafetal sunu melokaanu julli julli du ay muumaa yoo xam ne noo ko defee rek baax na dafa am melo exact woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko ci wax rek mais da ko jàngale ci pratique am na benn bis boo xam ne dafa julli taxaw di jàng bu jàngee parce que julli li ci gën a jafe mooy ruko yeeg sujjóot yi mais taxaw bi moom jafewul taxaw moom amul problème waaye rukkoo yi nooy rukkoo yi ba sa gannaaw maase ak sa bopp doo jootu doo téen doo ëpp bi itam nooy sujjóotee doo banku waaye lenn lu ci ne parce que dafa ne digal nañ ma sujjóot ci juróom-ñaar ñaari cati tànk yi dañuy tege ca suuf ñaari bëti wóom yi dañuy tege ci suuf ñaari loxo yi dañuy tege ci suuf ñoo xam ne seeni loxo duñ ko teg ci suuf bu leen deexee léeg-léeg wala ca gannaaw lañ koy teg ne fekk na ñaari loxo yi da ko war a tëral kanam ñaari cati yi tege na ñaari woob yi tege na ñaari loxo yi tege na juróom benn nga ko mu juróom-ñaar jë bi nag mooy yóbbaale bakkan bi moom juróom-ñaar yooyu ci la ñuy sujjóot loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne digal nañ ma ma digal ma sujjóot ci juróom-ñaari cër loo ci def itam day war a ànd ak li ñuy tuddee i'tidaal ak tumaniina ñaar yooyu ay farata lañ ci julli yoo xam ne am nañ ci ponk bu ne i'tidaal mooy la ngay def nga def ko ba mat maanaam booy rukkoo rukkool ba mu ne correct ba gannaaw gi ak bopp bi dañuy wax ne même buñ sotti woon ndox ci sa digg gannaaw du tuuroo ci kanam du tuuru ci gannaaw wala ci ñaari côté yépp lay dem maanaam doo juutu kon ku la sotti ndox day dem ci boo téeree ku la sotti ndox day dem ci gannaaw mais su maasee rek ku la sotti ndox day dem ci ñaari côté yépp ñu ne noonu nga war a rukkooyee bopp bi dafa war a jub ànd ak gannaaw gi maasee noonu la war a rukkooyee mu noppi nga ne fa dégg nag yàgg fa mooy tuma niina ba sujjóot bu rukkoo bu mat boobee nag mooy i'tidal mais soo nekkoon tongu noonu téeréer sa bopp boo fa amoon fanweeri minute it ruko bi matut waaw ruko bi matut ndax def nga tuma nii na yàgg nga fa mais dafa erti daal su joot noonu nga teg juróom yooyu ñu la wax ba noppi nag dafa jàng nag ab diir loolu ci lay doga mën a mate kon surtout sujjóot nag borom bi tabaraka wa da yonente bi sallallahu dafa wax ne su ngeen sujjóotee na ngeen ñaan ndax fi jaam bi gën a jege borom bi mooy su sujjóotee wasjud waqtarib wasjud waqtarib soo sujjóotee rek da ngay jege yàlla ndax sujjóot rek mooy benn action ci julli boo xam ne doo ko def ci lu dul julli li ne ci julli lépp da nga ko def ci lu dul julli toog toog am na ci julli noo ngi nii toog ah am na ci ko def ci lu dul julli taxaw am na ci julli da nga taxaw te doo julli rukkoo da ko def te doo julli léeg-léeg nga sëgg di jël saw daal sax rukkoo la waaye nag jekki-jekki rek bay sa bopp ci suuf te julli woo ko ko ko def moom ñu ne yow mii loolu la dal waaw rukkoo sujjóot moom ci ci julli rek lañ koy defe sujjóot ci julli rek lañ koy defe moo tax sax ci lañ jël baatub jàkka masjid sujjóotukaay xam nga jàkka ji kenn dugg fi sujjóot doomu mënoon na ko tuddee marka wala ñu tuddee ko majlis parce que lépp dafa am waaye nag sujjóot rek lañ jël tuddee ko masjid ndax sujjóot mooy mbir moo xam ne kenn du ko def te sujjóotu waaw da ngay dégg sax léeg-léeg ñuy wax ku dul ñu naan bu bu jëbi laalee suuf day dafa dafa dafa sëpp jale waaw maanaam dafa daan bu ñu lay wax ku dul julli ne kooku ne saa bu jëbi laalee suuf daa daan <laughs> waaw daaru daal moo koy tax laal suuf kon euh, ñu jéem a rafetal sunu julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu dafa ne su jàngee comme ni minbar bi nekkee nii su jàngee ba war a rukkoo day yéeg ay escalier minbar bi daal di rukkoo pour ña ca sàpp ca gannaaw mën koo seen ñëpp seen ko ci kaw minbar bi la doon rukkoo yi ñëpp seen ko mu daal di wàccaat sujjóot daal di wàccaat bu demee bay sujjóot itam daal di yéegaat kaw minbar bi ay escalier daal di sujjóot ñëpp seen ko noonu la def ba julli ga jeex mu wëlbatiku ne salloo kama raaytumani usalli raaytumuni gis ngeen ma parce que bu ko deful woon ñi ci ko deful woon xam nga ka ca ma mënta gis ilimaan mënoo gis ni muy rukkoo parce que ñi nit ñi la koy làq waaye bu fekkee nag yéeg na escale nag bu rukkoo moom waa jàkka ji ñëpp ko ci biñ paree nag mu ne yéen ñëpp a gis ni ma rukkooyee ma sujoote gis ni ma doon taxawee kon nag julli leen ni ngeen ma gise may jullee salloo kama raaytumuni usalli kon ni mu ko jàngale ci ay ahadis la ko jàngale ci pratique ci jëf bi kon moo tax jaar na julli boo koy jàngit nga jàng ko ci ki la koy jàngal na la ko misaalaale wan la ko nga gis waaye bu mu ne rek su jóotal wala rukkóol déedéet na la ko wan dañ koy démontrer di ko wane ci jàkka ji léeg-léeg nit ñi toog julli wu ñu ñoom kooku taxaw ci seen kanam su jóot ñu xool ni mu su fi mu teg loxo yeeg fi mu teg yëpp bu toogee ni mu toogee bu bu rukkoo su ko defee nit ñi mën ko caa jële ci melokaat boo xam ne bu mat la ndax ñu mën a julli julli goo xam ne borom bi tabaaraka ko taala dana ko nangu bu ëllëgi kon nag yàlla nu yàlla defal dégg ak topp yàlla nu yàlla nangul suñuy jaamu yàlla te eh, may nu ak sellal ci suñuy jaamu yàlla te bu ñu ko jaamu borom bi nangu ko te fëlal nu ko te may nu ngërëmam wasalaamu aleykum wa rahmatullah